ñu ngi lay. bismillahi rahmaani rahim wasalaatu wasalaam ala rasulillah ñu ngi ndokkeel askanu Sénégal yëpp ñu ndokkeel umma islamiya bi yëpp ci bis bu tedd bi de fukkeelu bis ci weeru muharram de fukkeelu bis ci at mu bees mi. at mu jot nag doomi daara yi daje fii ci buntu mairie Thiès daara yi ci dëkk bi yëpp ak école franco arabe ci dëkk bi yëpp ñëw def fi ab défilé def fi ay déclaration def fi ay dénkaane def fi ak fàttali muy bis boo xam ni ci yoon. bokk na ci ndigle yi ci liggéey macha allah mooy da ngaa war a xëy sol sa dàll siyaare ji borom xam-xam siyaare ji nitu yàlla siyaare ji ahlul quran kon nag bu amee occasion boo xam ne boo ca demee fekk fa lu ma juróom fukki borom xam-xam fekk fa juróom fukki imaam fekk fa ma juróom fukki nitu yàlla kon loolu dafay yombalal ki nga xam ne dafa doon sol dàllam dem ci juróom fukki yooyu yëpp kenn ku ne mu dem ba ci këram mu ci ko jëm siyaare ko ñu ciy profité aussi di ñaan yàlla yàlla defal ñu jàmm ci Sénégal defal ñu jàmm ci réew mi defal ñu jàmm ci suñu réew mi nawet bi nga xam tàmbali ci bismillahi rahmaani rahim ni ko mag ñi ñaane woon nga xam ni fan yële passé Cheikh Mouhamadul Mountakha santaane woon ñu jàng alxuraan ñaan yàlla mu wàcce taw bi taw bi wàcc na waaye yàlla na ci yàlla def barke suñu bu bi nga xam ne da nga koy def ca Ndakaaru muy jumaay Masaalikul Jinaan nga xam ne ci kàttanu yàlla à partir vingt 27 mooy doon jumaa ji gën a mag a rëy ci Afrique de l'Ouest jumaa joo xam ne fañ ko tabax juróom benn hectare la muy ab denc boo xam ne suñu borom subhanahu wa moo ko dencoo doon mag ñi dencal ko Mawlana Cheikh Ahmed Bamba Xaadim Rasul ndax xam ngeen ne fii may wax ak am benn juróom benn hectare yu taqaloo ca bi ca diggu Colobane ca diggu fa mu nekk loolu tawfiixu suñu borom denc bi yàlla ñu ñaan yàlla suñu mbokk mi nga xam ne moom la yàlla teg liggéey bi ci loxoom mooy sëriñ Mbàkke yu fay yàlla jàppale ko yàlla dimbali ko yàlla taxaw ko ba lépp àgg ci loxoom ba bu joxaan ci àggee la ca war a tegee di ab institut la recherche sur le ak benn salle de conférence boo xam ne fu ñun daara xewlee te mën faa dem muy salle boo xam ne dana jël lu mat ñetti moom lañ bëgg a ci Massalik loolu yëpp yàlla na ko yàlla mottali ñu ngi profité aussi di ñaanal son excellence président de la république yàlla jàppale ko yàlla sàmm ko yàlla taxaw ko li nga xam ne mi ngi ko contribué na ko ci Massalikul Jinaan murid yëpp bëgg nañ ci li nga xam ne jàpp na ci Massalikul Jinaan murid yëpp bëgg nañ ci événement bii ñu jëmi ni mu ko jëlee murid yëpp bëgg nañ ci jullit yëpp bëgg nañ ci ndax xam nga ni dana invité ay naataangoom président ñu teew dina invité ay institution yu am doole ci Afrique ak ci àddina bi ñu teew ci kon moom ñu koy ñaanal yàlla yàlla sàmm ko yàlla dëgëral ko li mu bëgg ci Sénégal bëgg ko def ci diine ji yàlla na ko yàlla ñaan bi yàgg koo fekkee yàgg koo tal yàgg koo teewee lépp muy yiw jaay Seydina Muhammad réew mi nga xam ne amuñu lu moom muy réewu Sénégal yàlla defal ñu fi jàmm defal ñu fi unité defal ñu fi stabilité li nga xam ne du fi séntu muy pétrole bi yàlla def mu ñëw ci jàmm doon xéewalu Sénégal doon xéewalu Afrique doon xéewalu jullit yëpp asalaamaaleykum الله ما شاء الله كون خالي نيو اكسي لولو دابا خولي تي بير فوالا ني كاي ديف اك ني ديف رك توجور ييم ييم لولو موم نيكو استاذ محمد دو واخا ديغ رك مانام دو ني تولو تي فاكانس جانغالين دينه دو نيو دو نيو ادنا فوف ايكول فرانكو ملني كارتري نيو تولو suñu réew mi nga xam ne réew la moo xam ne quatre-vingt-quinze pour cent ay musulman lañu kon ku fi yëngatu moo xam ab commerçant moo xam jàngalekat la moo xam entrepreneur nga war ngaa bàyyi xel sentiment julli nii war ngaa bàyyi te réew a réy lislaam ñu ngi leen ñu jël ñu dellu ci ginnaaw na décision la boo xam ne dafay wane en wane racisme wane ñàkk warmal diine te loolu yàlla yàlla dëppale ñu ñu dellu ginnaaw ci décision boobu ñaan euh, ah. doomu julit boo xam ne yaa ngi ne ci bërëb boobu ñu bëgg laa xañ sa diine wala sa comportement religieuse nga jël sa doom yóbbu ko fa ci boo xam ne bu ko yar yarub yi ne te duñ ko fa yaatal bi seen jërëjëf